Bonjour c'est qui ça. déglu leen jàmm la. les gars les gars les mel nag doy na waar torop torop am waali indi siidi am siidi indi waali. mbir mi nan la demee. ah ñaari artistes wayandoo même son même but même titre. yow looy wax ni. teg si nag génneendoo ko même jour nit ñi dégloondoo ko même heure. partagé ko ci même minute ma dégloo ko ci même kersi. sama xel ñaaw na ci. lii moom du hasard moo tax may lakk ci ñoom ñaar kat moo triché. no am na ko triché nag am na ko triché nag. non am na ko triché. Wally Seck moo triché. wala Sidi Diop moo triché. balaa ñoo gën a xuus ci wax ji nag nañu Gosow may son. demal ma xool. e Gosow. waaye dugal ñu wàll bi waa ñu xool. guddi jaawale. diggante boog. i Gosow coupe coupe e Gosow coupe. <laughs> roofal ma Sidi Diop. animation bi. lu mu def. xamul tous. ah waaye sàmm nag ñun dañuy analyse. déedéet nag day xaar ba mbir mi continuer fa mu neexee rek mu ni ko tàppi ca ca xereñ leen rek. ah foo mu dag ko nag ndax dañuy analyse. waaye kii xamul dara waay yi. dégg nañu Sidi Diop bi dégg nañu Wally Seck bi. man de lii mosuma ko gis. am moom wax dëgg yàlla. ndaxte mi ngi mel ni ñu jox leen devoir PC ñu bokk lu ñuy def bokk lu ñuy bind bëgg a bokk résultat. kon bok amna ko tricher amna ko tricher ci classe bi. mom moom biti la fa naan ak a neexoon tey ma xam kan moo njëkk a génne leçon ci ñom ñaar. quand même on se calme. ah pourquoi on se calme. waaw mais vous êtes terrassé les gens. vous êtes. terrassé les gens. xam nga li lepp waxon nako Père Diop. bo may wax man nag may wax lu leer. li may wax te diko ko laajte lenn rek la Wally ak Sidi kan moo njëkk a son. suma yebone on dirait wali mo njëkk a kon yow da nga bëgg a wax ne Sidi moo triché. Sidi moo toppandoo son bi. muni ni <laughs> kii da nee na Sidi moo pour man Sidi fi dàq waay. Cissé yow nga ne moo fi dàqaway mais pour man loolu du dara liggéey la rek. mais yow Sidi sa lan la sax. mooy sama papa. mooy sama woykat ragal a féete day wàññi wërsëg. moo taxit yaa ngi ràcc di jëmale sa kanam rek. parce que ku ràcc jëmale sa kanam mu dal la. leen de am na yaa ma jiitu bëgg naa loo wax dinaa ko suul. waaye nag du tax. ma di ko booleeg ay rëkk. soo bi ñu génne ñoom ñaar cinquante cinquante la ku ci nekk dafa am foo dominer sa morom. ah da ngaa bëgg wax ne ñoom ñaar ñu jàngee. xam nga ku nekk université. waaw. ak ku nekk benn eh, euh, sixième dagg du élémentaire. est-ce que est-ce que est-ce que amul lu élémentaire. petite section. petite section. waaw. xam nga xam nga xam nga kan moo nekk université ci ñoom ñaar. déet loolu yaa gën a xam yow koy laaj. xam naa ne da ngaa ragal wax ji rek mais ñun xam nañ ne ngay waxal. weer sama géej ku weer yaa moom. ah bon. waaye mënut sóoraale si yu mënul nekk de. mais nag da ngaa war a xam ne moto moo gis bëgg na doone ab kuy ëllëg bu am ay béjjën di mbëkkee. mais dajeeg nag. ndaw combat bu Ih, legal, legal, legal, legal, legal. mais Wally ak ñu way bi. kon tendance bi metti rek. tendance dafa ci dul yegg fi say mais bay tendance dem bay niroo lu def nga a du problème. problème da nga ko a gis. mais ba àdduna sosoog léegi lii mi ngi door am. ah leen de xam naa ko mën ngeen def tendance mais ngeen wute li ngeen di def. li mooy dëgg. mais génneen doo même son même jour naan tendance. xëy na mën naa am yëgoo man na caa bañ a ah yëgoo kay am na ki nag père ndax Youssou Ndour way na lu toll ak 1000 son ñoom ñaar waral ay gaaf. wala am na ñoom ñaar am na ku seen seen staff yi. waa mais mënut a foo gis fukki nit wu daje fokk am koo xamante ni si biir bi day mel ni ginaar a ci ne. maanaam. moom mooy daw jóge fii di yóbbul kële waaye kee koy mu yóbbul mooy daw di jële foofa di andi fii. a ah fii ko jaaree nii de moom doy na waar. Oh, xanaa déggoo li ma la dama la di kiy jële fii di yóbbu fële moom mooy jëlee foofu di andi fii. mais nag li problème bi di bari bari bari coow li lenn dong la Wally dafa dugg almadi Sidi dugg almadi Wally duggaat fa dimanche sii songu ko Wally daal di laal timis Sidi dikk daal di laal five <laughs> diggante Wally Sidi moom comme pépé mu topp wala sax nga ne tomb topp jéeri xaayaan ku deg serer mais nak bima ma ba à 99 minutes 59 secondes la gis gas Taba mbay di ñew Taba mbay nan ma mi nga dan tok di joy nan amo ci mom sa góor seetet man tay la jomi tay gi la waru nga ndaxte genre classe yi ñu ko doon gisé ci rap bi tay nak ñu gis ko ci malax bi te classe bi sax dafa sét dafa aw tour bi directement en tout cas dal man mom ñom ñepp la yamalé parce que c'est le Sénégal qui gagne quoi waaw man de lii laa wax mbaa yéen loolu ngeen wax. ñun lii nañu mëna wax do Ndoye Ndiaye. bu ko defee suñu mom mëna def ñan. ah eh, taxaw taxaw bala mam di ñan Mbaye Diagne waxoon na ma dafa am lu mu bëgg a leeral bu ko défé Mbaye Diagne Mbaye mën nga ñew mën nga ñew ñu déglu. doon ci wax nekk sama doom ci si télé nonu quoi mais dafa am comment waa vidéo ñom Mbaye dina li gaaw ci suuf tam ci ngelaw wal. muni manam Mbaye dafa bëri ay façon il faut ngay préciser ndax ngelaw dafa bëri ay calambeer amna ay ngelaw ventilo préciser mu leer ñu ne ma dama doxoon i en tant que international mais xanaa international du doxoon ah kay mbay su la neexee mais xam nga rek comme ni wax siwlu jàmmi borom mais loolu dara nekk si sax même pour amee ah heureusement ba amut waaye bàyyil jàmbur waay la gontri bëgg na tam dama la bàyyi ragal ra bu ko defee kon suñu mam mën naa defati ñaan wasan On va faire iPhone les gars, faut photonique elle est plus de deux.